wax tey journée bi nga xam ne lancement la xam ngeen président de la République daa jël bés bi mu ne nañ ko def ci Sénégal yëpp muy moom ci boppam la la koy tàmbali ci ministères yi ak ci directeurs yi ak ci maire yi ba na tey bépp maire bi nga xam ne ci biir Sénégal delloo nga ci maire bi nga nekk nga jéem a def lancement bi aussi di ci gërëm monsieur le monsieur le sous-préfet Yacouba Sow ndaxte biñ jokkoo ak moom bi ñuy wooxee ñu ne ñu moom dana def tout pour pour jàppale fii lay defee lancement bi fii ci arrondissement bi mu muy commune bu Deyaane kon nag ñu di ko sant bu baax bi loolu amee nag woo naa ñi xam ne ñoom chef de village ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Deyaane muy juróomi chef de village yi woo naa ñi nga xam ne muy IICP bi moom mu ngi fi eaux et bi mu ngi fi directeur école bi mu ngi fi ñu nekk seem ñu ngi fi ñii conseil yi yëpp ñu ngi fi chefs de yi ñu ngi fi notable yi ñu ngi fi imam yi ñu ngi mbootaay jigéen ñu ngi fi mbootaay xale yi ñu ñoom ñu ngi fi ku nekk ni nga xam ne lancé lancé nañ ko fii te dañ ko bëgg continuer di di ko def ci biir commune Deyali yi yëpp comme ñu ko defe nii soo demee tey à Touba Boustaan ñoom ñu ñu ngi def lu mel nii soo demee kaddu ballu ñu ngi koy def soo demee ballu ñu ngi koy def ñu ngi koy def kon nag mu nekk li nga xam ne lu rëy ci ñun xam ngeen lii moom xam naa ne Déyaly moom su fekkee am na prix bi nga xam ne ñu ngi koy wax ñun ñun ñu bëgg Déyaly bokk ci commune yi nekk ci département Linguère gi nekk Paix. am na li nga ne nekkoon nañ ci suñu xel maa ngi doon ci waxtaan ak président commission environnement bi dama doon wax comme su guñu wate suñu budget bi yoon su danañ ko danañ ci dugal li nga xam ne comme lii am na budget bi nga xam ne ñun danañ ci mairie bi dana def tout jënd ay saret jënd ay mbaam euh, jënd ay burwet ay ratu ñu jox ko ah, ñu defar fi ay groupement jigéen yi ñu jox leen képp ki nga xam ne am nga nituwaay bi nga xam ne mun nga jël saret yi mun nga jël rat yi ñu jox leen ñun pare nañ aussi ci ci li mu wax ni ci dëkk bi ni xam ngeen dëkk bi ki ki ki jiitu groupement bi wax na ko léegi muy pharmacie la ku ne su mu bale daa am fi muy jëmee waaye waaw danañ waxtaane danañ ci waxtaan ci ci kanam sous su suñu réunion municipale bii di ñëw ñu seet benn site bi nga xam ne fi lépp lu ñuy jël mbalik ci biir dëkk bi foofu lañ koy foofu lañ koy defee. fi mu eh, eh, li ma bëgg a wax daan commune bu Déyaly ah, yëpp pare nañu kilifa diini yi nekk fii yëpp pare nañu seet village yi ah, pare nañu xale yu góor yëpp pare nañu a ah, kenn desul groupement jigéen yi pare nañu. pour Déaly nekk ci fii ci département Linguère mu nekk commune bi nga xam ne mooy nekk P e. ndaxte ku ré ku réerwul mbir yeneen communes yëpp Déaly moo moo nekk buntu bi. te yeneen commune am ni ñi xam ne lale waaye Déaly moom ku romb fii dana ku kuy jóge Dakar jëm merci beaucoup. Nous sommes euh, très heureux d'être ici aujourd'hui dans la commune de Déali donc pour euh, assister à la journée de lancement donc d'une journée de propreté que le chef de l'État a instaurée. Donc désormais chaque premier samedi du mois, que ce soit une journée de propreté. Et nous avons commencé aujourd'hui par la commune de Déali, dans laquelle je suis vraiment très heureux d'être ici présent, à, côté de moi, donc le maire et son, bureau, le chef de village, Madjignan, l'a dit tout à l'heure, la responsable des femmes, pharmacie, l'a dit tantôt, les jeunes, l'ensemble des services, notamment l'ICP, il est là, les directeurs d'école, le proviseur, etc. Tout le monde est là aujourd'hui, ainsi que les jeunes, pour vraiment démarrer cette journée-là. Nous sommes très heureux de venir la présider. Donc euh, nous avons fait un tour de, la ville de Déali. Nous avons <laughs> regardé ce que les femmes ont fait comme travail. Et au bout du compte, nous sommes là donc sur ce dernier truc là pour faire ce point de presse là. Donc vraiment, tous nos encouragements et toutes nos félicitations à l'ensemble des populations de la commune de Déali et en l'occurrence la ville de Déali. comme l'a dit tantôt le maire, effectivement, il n'y a pas que le village de Déali qui a fait la journée de liberté Donc, il y a aussi donc, le village de Kadobaloji, il y a aussi le village de touba il y a le village de Wenlumbel, etc. Et nous allons connaître dans les autres villages. Donc nous sommes vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. Maintenant, pour... Euh, ñëw vraiment dit de bu vous di sante yalla ñëw fi maire ak bureau bi euh, la responsable des femmes du pharmacie Silla le représentant des chefs de village moy Niang diko gërëm nuyu xalé yi nuyu gis mais nak bon maire wax nako matériel effectivement ils vont vers un vote de budget dès lundi, Inch'Allah, si tout va bien, allez être dans le budget, donc avoir admis avec la commission environnementale pour avoir ah, davantage de matériel. Je crois donc aujourd'hui, la journée de lancement, donc, comme la demande a été une réalité ici dans la communauté, nous sommes très heureux de la présider. Merci beaucoup.